kar lool ndaysaan mu ngi noonu tent bopp ba ak miskeel ndaysaan Mbaye Diaw doomu Souleymane Diaw la ndaysaan ñu ngi noonu ñoom ñaar loo ci ñaar xale yi waaw Michael Bey la ak euh, Mbaye Diaw bu neex la nag ak euh, Michael xale la mais Mbaye Diaw bu xale lool de waaye ak ndaanaan doom pa Souleymane Diaw la ndaanaan la mbër la waa doomu mbër la papa ma ngay toog ndeysaan Mbaye Diaw waaw ma nga noonu ndeysaan Mbaye Diaw doomu Souleymane Allah ñoom nga Baye Balla papa mi Baye Bara door na leen ñu daanu Paa Souleymane Diaw waaw moom ne Pape Kane ne Pape Diop ñu la bëree doo Baye Bara door na Mbaye Diaw arbitre bi sifflé waat na mbokk yi Mbaye Diaw ngeen jàkkaar lool moo tent bopp bi bàyyi ma ko indi moom Souleymane Diaw waaye Michael Doo mu ngi noonu moom it xaw ma ban Michael la tuddee boppam xaw ma Fora xaw ma Michael Yaraax xaw ma Michael Jackson waaye en tout daal Michael la joxe Michael daal Michael la. Ndeysaan gis nga dagg na léewtoo bi Ndeysaan Mbaye Diaw dagg na léewtoo bi. arbitre bi àtte na arbitre bi moom bëre rek ko yitteel xeex leen bëre leen ku koy def yaa ngi ci jàmm. ndeysaan ku koy def yaa ngi ci jàpp. arbitre bi sifflé dox ci diggante Mbaye Diaw ak Michael. daw nañ jàppante. Mbaye Diaw ndengeñante nañ. Michael numéro 2 ak Mbaye Diaw. laa ilaaha illallaah Mbaye Diaw bëggoon naa wa. hee Mbaye. ndànk. Mbaye Kal ak Mbaye Diaw ndaanaan la sama baay mooy Souleymane Diaw doyut de waaye da joy yokk xarañte ak mën a moom Mbaye Diaw ndaysaan Mbaye ngook Mbaye ngi noonu Mbaye Diaw a ngi noonu ndaysaan jàppante nañ Michael Mbaye mbay Michael ña ngay xeex gàllaaj yaa ngay dagg ña ngay xeex ña ngay xeex ndeysaan ña ngay xeex ña ngay xeex ndeysaan ngay xeex Mbaye Jaw Michael ndeysaan Mbaye Diaw may kël Mbaye Diaw may kël ndeysaan na nga noonu ña ngay dóor Mbaye Diaw ngay dóor ma ngay dóor Mbaye Diaw ngay dóor Mbaye Diaw ngay dóor may kël Mbaye Diaw fay na laay laay la laa xeex ba métti na xeex ba métti na plaqué na ko tegal na ko 16 Mbaye Diaw tax na daan na ko la ilaha illallah eh Mbaye Sow daan na waay Mbaye Sow daan na ko daan na ko jël bu rëy Mbaye Sow daan na ko jël bu rëy Mbaye Sow daan na ko jël bu rëy Alaaji Souleymane Thiaw ay baayam ndeysaan Mbaye daan na Mbaye Sow daan na